asalaamaaleykum mbokku internet seen média ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag dañ leen indiloon indiloon benn thème muy seen société te ku wax societé wax xale tey nag ci xale yi la taxaw tuuti indil leen ci quelque benn waxtaan bu neex rek bu ndaw rek pour ñu war a yee parents yi ma am nag sama droit Zeyna. yaa yaa joor gis naa la gis naa la merci beaucoup. macha allah merci. waa Aïcha. yaa joor waa sa xam nga ne vax xale yi amuñu fir di ko defee émission. ak sa tagal bu jongoma. ah tey émission bi dañ ko dëbb ba mokk tey. ah amaa bëgg na ngeen firi ñu ñu ñu xaabaabal rek waxtaan. Mm-hmm. nit ñi mën cee jëlee dara. du dëgg sëy tey nag li ma bëggoon ñu waxtaanee xam nga mooy lan. Mm-hmm. sëy yëg rey yi ci am ci dëkk bi fan yi yëg ko rendi yi. parents yi jaaxle ñëpp tiit. loolu dalaa bëggoon ñu waxtaanee ci sa yara yi bëri na man sama bopp damay tiit. billaay wallaay. lu ci sa xalaat nag yow. li ci sama xalaat mooy xanaa moytu rek ak yar xale yi parce que loo gis ci kër yi lay commencé avant muy génn ci biti xale dañ koy yar ak pistolet yi xale yi di foowee léeg-léeg paaka yi ñu jox xale yi di jouer yooyu yëpp man sax bëgguma xale di ko foowee parce que day tax xale agressif waaw xam nga di xool yooyu di jouer di rayaateeg dëkk bi daal man dama ragal daal xam naa ne daal moom parents yi war nañuy xoolaat toogaay yar doom yi xam nga jar nañu yóbbu leen daara xam nga dëkk bi daal doo tiit daal boo tëddee sax doo nelaw da ngay xalaat sa njaboot. parce que xale yi agressif nañ ci lépp ba ñuy xale lañuy ñuy commencé di foowe ay gajj di foowe ay dóor di loqate ay bët ay big ak lépp a ngi fi mooy dem ba boo màggee ngay rey am fitu di def yenn yi daal. waaw jamono ji daal ko yebu daal yar xale yi bu baax tàggat leen ci diine ak lislaam daal ñu éviter yu bari loolu tënkee li nga wax daal maanaam mi ngi dooree ci jouet yi ñuy jox xale yi waaw seetlu naa ko des fois ñu jox xale ay pistolet def ci ndox xale bi di tiire xelam day nekk ci loolu jox la ay paaka nga yor paaka bi di ci foo sa xel da ciy nekk te am na xale yoo xam ne dañuy capté waaw di ci foo des fois nga def dara sax sa yaay nëpp nëpp lal la ko nga màgg. loolu loolu li nga li nga foyee ci xale rek boo màggee loolu mooy nekk. moo lay topp ba nga nekk mag. kon daal parent yi daal nañ xoolaat xale yi yar leen. waa jeex na ba tey baax na Aïcha. lu ci sa xalaat yow. ah man lu ci sama xalaat mooy parent yi ñu ngi yar xale yi wax dëgg yàlla bu nekkee yar dangay gis parent boo xam te ne day yar doomam ci biir këram. mooy kon ñu koy waxee dangay yar sa biir kër mbedd bi yàqal la ndax xale yi léegi fooyatuñu lu dul voler. yàmba da xool ku mën a tëddal nit rendi ko ndëgam volet baa ngi am ci dëkk bi ñu koy jaay moyen de cher xale yi mun ko jënd loolu mooy indi xale yi di def lu ñuy def parce que soo tiimee sa mu bàyyi kon lu am Cees rendi ko kon kooku ba mu koy def nekkul lépp nag mu ngi commencement ci xale yi nga xam te ne dañuy drogué wu te seen parents yi duñ ko yëg da ngay gis koo xam te ne yar na doomam ci diine école bu tëjee da koy yóbbu alxuraan mu jàngi mais lan moo koy yàq foo woontu tox di sàcc na ñuy volé seen parents yi kon affaire bi mu ngi ci mbedd bi xale yi ñu ngi bonee ci mbedd bi ci seen i àndandoo yi wante pas ci biir kër yi parce que parents yi lépp lu ñu mën wax dëgg yàlla ñu ngi koy def seen doom am na nag Aïcha foofu ànd ma fekk yow am na ñoo xamante ni ñu ngi bonee ci biir kër yi te fois nga yar sa doom ci sa biir kër mu bonee ci biir kër gi li koy yàqan ci biir kër gi te nit ñi sañ ñu ko wax. mooy kër yu yaajoo loolu moom mooy kër yi nga xam ne ça veut dire que lu la waaye neex def. mais dangay xool ñii di rend laa wax jamono ji ñu toll rendi yi am ci dëkk bi ñu koy def ñëpp dañuy drogué wu. am si. yaa jox munoo tee nit munoo tee nit nga rendi ko nga ne yow lu si nga loolu munu nekk. waaw xam nga kooku drogué wu wante kooku xalaatul woon mu ngi rend kooku bu mu koy rendi dina dina ko dina ko rey. parce que ba mu koy def moom soo déggee nu mu waxee ba mu koy def dafa jël paaka pour tiitu ko far seytaane mun ko ndax ñoo xam te ne ñooy ànd. ba nga kenn ku tuddé moromam wa kon xam nga kooku rey taxu ko woon jug. kooku moom wax deug ya ray taxu ko woon mais xam nga mi ngi lucide rek. rek kon kon xamal ni rendi, du question nga nga tux wala nga nan nervosité rek mën na la pousser ba nga rendi nit amna na dañu nerveuse tàng xol. Ya, tàng xol te nit bu tangé xol do réfléchir. ñu rek jël nañ ko kaa boole ko kii log lok bi ndëgam mu ngi am ci dëkk bi lu ne dinañ ko dégg mais amna ñu lucide amna ñu lay bañ paa bu nekk Thiès paa bu nekk Thiès di gàdde paa la ñu rendi ko noonu kooku léegi ku ko rendi moom ti lan la ko war a rendee du xaalis du dara du bor du dara lekk lu tax kooku ñëw fekk ko rendi ko est-ce que ko ba mu koy rendi est-ce que moom njaay lañ. en fait xam nga affaire bi lan la. xale boo juree sa doom xale boo koy nàmpal âge bi instant bi ñu koy nàmpal uuf ko di ko nàmpal les bonnes manières ci ñu koy def ci moom. lu ndaw lu ñew lu mu def nga tel ko rectifier muy mag ngay rectifier muy mag bu jaree dóor nga dóor bu jaree sag nga sag mais dom tam mëno bàyyi ba xalé bi dëgër ne kecc bant bant ci ci ci to to bi nga koy jubbantee bo bàyyi ba mu mëno to ko jubbanti mais da nga yoré xalé bàyyi ko bàyyi mu ëpp la doolé ëpp la loxo nga bëgg âge boobu nonu soit ne xaar ma dem buux ko ca daara ja sonal sëriñ ba tey yaa joor yow tay ji yaangi jël mohammed tay ji sa dom pourtant yaa ngi ko yar su wàccee école foo koy njëkk a mu dem jàngi cours du soir école bu tëjee lu muy dem jàngi alxuraan chaque vendredi demu daayra mais tey ji bu màggee àndandoo day yàq xale yi suñ commencé seizième lycée pour ñoom ay mag lañ fa la ñuy too di tox est ce que yow bu duggee ci kër gi dina xeeñ cigarette mais léeg am na comme li joor wax nii ne bi ngay nàmpal sa doom da ngay wax ak sa doom mhm. day nekk ba âge ba loolu noonu Mouhamed di def gis yaayam di ko ci yar ci diine lu mu gis groupe di def lu bon dina en xalaat ne lii waruma ankañ ankañ ankañ am na xale yoo xam boo defee base bi bu baax rek ci diineeg lislaam rek yu ci bari dinañ mucc dinañ mucc parce que mi ngi noonu des fois nattu yàlla day ñëw Aïcha lépp du àndandoo ci biti non non lépp du àndandoo ci biti d'accord baax lépp du àndandoo ci biti gis nga gis nga éducation tam xam nga lan mooy éducation tamit da ngay gis ku yar sa doom ba mu xaw a dëgër rek pour yow pare nga éducation du jeex man mii sama yaay ba léegi daf may éduquer man ak ni ma toll nii éducation du jeex ñemewu ma sama yaay ba nii ma amee boroom kër mais da ngay gis yow soo majeure rek wala nga am jëkkër rek sa yaay pare na ci yow munu nekk nit nit di dem ba sëy door a bon ah. waaw éducation doom fekk yaa ngi koy jur yaay kilifaam da ngay continuer di ko yar Mouhamed bii ngay wax lii ñu def ci moom muy jàng di wàcc dem cours du soir dem daayira duñ ko bàyyi ba ilaayu mi di mu dem lycée da ngay continuer méthode boobu di ko nekk moom bu ñëwee boo gisee changement ci moom nga dindi mu dem ba nekk ponkalum jëmm ngay continuer âge noonu ci âge boobu mu am wan ko ne maay sa kilifa noonu la nit di doxalee mais mënoo xale bu am 18 ans rek comme ni ko tubaab di defee rek majeur nga am yëpp yëpp croiser dégage seen fa. mais que soo sa kër sa kër rek sa ko làq olof nga jël ko def ko mag. pare joor mbedd mi sax dañ daan yar bu njëkk ba da ngay def tànku neen nit na la dama nga soli daal. dóor la nga dem toog sa yaay du wax dara mais léegi mbedd mi dangay boole doomu jaamu romb naa diw fee muy toog nga ñëw dafa bañ sama doom sama doom def ko. xam nga nit ñi amatuñu accès ci doomu jàmbur yi xam nga jamono ji tëradi na xam nga waaw bu njëkk bi dañ daan wax xoolal sa doom bu jigéen bii fee ma koy gis neexuma nga topp ko dem dóor ko jëli ko dem di ko fekk ci sabar yi di ko wàññi xam nga xale yu góor yi di la dóor teel a tëdd ku ci sangul nga dóor ko demal nga sangu ji del sol lu set del jàpp loolu amatu léegi maanaam ñun ñëpp daan jàpp ci éducation mooy suñu genre gi ñun sa prof sa sa bi lay jàngal koñ ba mu dëkk amoo woon fitu wàcc 6 heures war a dem jàngi sa leçon di fa aw mu lay gis dina la dóor ba ngay bëgg a dee boo gisaan ki lay jàngal dangay daw ragal mais léegi sa prof da nga koy gis tàpp ko làng moom waxtaan amul droit wax la dara nga gis koo xamante ne doom day ñëw jóge école suñu monsieur ma dóor nga jiital xale bi buy jàngi lëndi nga bokk ko yóbbu ko ba ci kii ba ne ko dóorloo ma la sama doom moo tax léegi école sax da daan yar mais man li li ma gis léegi nii école yi sax yar bi wàññi nañ ko xaalis léegi ecole yi ñun ni ñu daan jàngalee école ñun ak li ma daan gis xale yi di ko jàngee léegi amatul bëreetul léegi da daan gis école da ngay jàng ñu jàngal la nga wàcc ñëwaat sa prof xool ndax jàng sa leçon xool say kaye mais léegi xaalis yóbbu na société bi foo xamante ni ba prof da ngay ñëw vite fait jàngal élève li ñu koy jàngal pare nga dem nga defaat cours particulier ci kër yi. dem jàngal ñeneen ñu lay fay ci biti talatoo élève bi ñi am chance mooy. nga am élève bu sa doom mën a jàng nga fayal ko yowit cours bu ñëwee day ànd ak professeur bi rek mu yomb jàngal mais xale bu nilaar nii prof daraan jël xale bu nilaar jàngal ko ba mu mokkal mais léegi boo nilaaree perte nga soit sa yaa da génne école bi maanaam ñëpp croiser la bras ci société bi kenn kenn jëlatul benn engagement pour mën a yar pour defar Sénégal moo tax Sénégal yàqu te dañoo commencé ci xale yi mais li nekk ci Sénégal gi tey yàqu yaxeet buñ ko doon émission fii la ñuy fanaan du fi du fi jeex Aïcha ah, am naa waajur yi daal ñu ngi yar wante mbedd baa ngi yàq man daal moom wax dëgg yàlla ci laa dëkk parce que xale yi de da ngay xool xale yi baali sur baali boo demee almadi da ngay foog yaa ngi digg États-Unis toog fa xale yi nii la ñuy woo nii la ñuy man nee naa tant que Sénégal volé bi moom mu ngi bari xale yi musiba ngi fiy gën a am li ma d'accordul mooy élection yi ñëw na dañuy dañuy sacrifier nit ñi sax non non sacrifier wuñ kenn fi amul kenn ko ñu sacrifier non amul parce que xale yi ñu ñu ma soo bëggee sa bonu bopp yaay bonu sa bonu bopp sacrifier nan lañ sacrifier barki démb Touba ki ñu fekk muy rendi xale day sacrifier xale bu ndaw 6 ans Touba nga téye ko di ko rendi ci lan ñu téye la nga ne maa ko rendi xaw ma tax man lan moo ko defloo loolu bon la lan moo la ko defloo ne ma ne xale yi daal nañ leen yaraat te fii suñu tëddalee diine gi ku fi rey ñu rey la kon nuñ defoon ki nekk caaroy da nga da nga nit balaa nga fay jógee ñu dóor la ba nga dee léegi dee bi arrêté ndax fii kenn ñemewul dee ñeme nga rendi waale waaye ñeme mais waaw mais l'islam moo ko santaane ku fi rey nañ la rey dama ne ñun di nekkee diine l'islam lañ fi nekk nañ ko appliqué duñ ko fii Aïcha xam nga wax ji mooy lan bépp parent boo jëlee sa doom bu ku nekk jëloon sa doom mais bu parent retraité yow boo xëyee sa doom am na ñoo xamante ne bu xale bi yeewoo pour jàngi fee ngay tëdd ne ko yëre yaa nga ne mooy xale yi ngay dayee ci mbeddam ñu weex taal au dos sac du am fermeture bopp yi am éponge boobu seen yaay ngay xam doo di nalaw nga ne xale ba sac baa ngi noonu xale ba tam yoonam nekku ci day dugg ci douche bi laal kanam gi des fois sa du sëlmu xëcc saagam la mu fanaanoo mu teg ci beneen tubay xëcc benn yëre dem loolu boo demee ki lay jàng rek du la respecté sa yaay lay njëkk a xale bi ñëw commencé ci école ba am fa ay ay ay manière am yu mu fay def su ñëwee ci kër gi indi ñu am na ñoo xamante ne seen doom su waxee lu lu lu lu rëy dañ koy reetaan dañuy ree naan ndey sa ak a muus am xel xoola li muy wax yow doo retrifier xale bi wala xale saaga ngeen di reetaan naan xoola deux ans la am de moom saaga rek commencé saaga fan la ko jàngee sénégalais def loolu ay reetaan te loolu normalul xale nee naa la xale moo gën a capté du du yaa ngi dégg xale du fàtte xale loo ko def ci xale ba mu màgg dina xam ñi ko bëggoon ak ñi ko bañoon kon xale du fàtte nañu delloo siwaat xel yi yaraat xale yi ci biir kër yi bañ a retraité da gis tam léeg lenn tam am na loo xamante ne bëggoon naa cee wax zëy jéeg gi dañoo jéegantu jéegantu ba fàtte xale yi dangay ngay gis koo xamante ne bu xëyee ma nga marché ma ngay ndugg fu seur rafetee nga jënt lépp ci fiir bañ sa jëkkër tak ñaareel wala ñette wala sa jëkkër doxaan fekk ya nga yo sa njabot ju sew tek jëndi seur jëndi fer luy neexal sey nga jënd faté nga sa doom bo yexé ya ngay préparé defar sa neek cuuraay di xaar sen pap wa légui xalé nak xalé nak paré sen pap jéegal defar bam baax sa sa jëkkër kontaan té néna len jonga ma génération góor bi ma gis jong ma téewul góor yàllaa lay dimbali rëccal la léegi boo toppee sa jëkkër topp sa jëkkër maa ngi koy satisfaire maa ngi koy def lii maa koy def lii fàtte sa doom yi li jëntiwoo leen waa après yow yow yow yow aki ah, laa faute mm-hmm. góor góor la papa day daw di wut lu mu indi ci kër gi sëy mm-hmm. lu leen dundalee éducation bi yaay ji moo ko war a def ci doom ji pàpp ji day mottali ndax journée bi yëpp du ko fa fekk mais bu jigéen ñi bàyyiwul nu mu tudd astuce yooyu ñuy wax mais yaajoo tamit mais yaajoo tamit papa bu xëyee dem uti ji lu mu am waaw nga nekk xale mais bu papa ji wàccee nga nekk sa jëkkër ah si parce que yow bi yaa ngi nekk say doom noo xam nga waaw waaw déglu waaw léegi dama bëgg a ma yaajoo dama bëgg a déglu ma tey jii nañ waxante dëgg nag soo xëyee suba ba ngoon jot ba 19 heures 20 heures sa jëkkër bu wàccee soo defee say doom ñu ree ba pare war nga jublu ci say jëkkër wante da ngay ñoo xamante seen jëkkër sa day wàcc ñu ngi ca télé ba ñu ngi ca waxtaan ba ca digg ëtt ba seen jëkkër day dugg ci douche bi sangu génn dem doxaani ji léegi nag boo toppatoo say doom ba seen papa wàcc nga nekk ci seen papa laal loolooy jekk toppatoo say doom toppatoo say doom boole say jëkkër moo tax ñu la kuy say amoo jot boo bëggee jur lu baax boo xëyee toppatoo say doom ñu jàng ñu wàcc nga xool seen kaye xool seen saak xool seen saak man liir naa fi kuñ kuñ ne dafa def malaise ndax daa ubbi saagu doomam fekk ci préservatif te doom ji mi ngi amoon amoon 11 ans xawma mu xam doo vérifier sa saagu doom doo xool ay yëreem bu yoree téléphone ba pare li ma gën a métti Sénégal mooy ah, xale yi téléphone eng salaam xale yi léegi 10 ans onze ans yor nañ téléphone am wifi ci kër ga yow soo tayalee mel ni man tëdd ci jàpp novelas bi jël xale bi jox ko téléphone ba nekk demal ca néeg ba bu ma sonal du ma damay damay damay damay setaan film waaye léegi bu xale ba demee ca youtube bee nga ne xale yi li ci téléphone ñoo la ko gën a xam téeméeri junni bu yendoo ci téléphone bi ne ca youtube ba dugg ci site bu ko neex seetaan ci lu ko neex ne pat jàpp ñaamburam lan ngay xamal xale bi ah, ah? waaw bu paree du ko dem essayé ji léegi nag loolu nag xale bi di la ko nëbb di la ko nëbb di ba benn âge ba boo ko découvrir da dangay da ngay da doo ko dangay ngay dee boo rëccee ba rëcc boo deewul di nga xam wala sa àdduna fa lay doxee yàqu sa jëkkër jéppi la parce que jëkkër mënu xëy dem wër su ba guddi di wut lu ngeen lekk mm-hmm. nga war ko yaral doom yaraloo ko toog ci kër gi rek ne màpp màppaaral jéem a lu bu guddee jot nga jéem a satisfaire sa jëkkër ne maa ngi jeeg jeeg laa damay jeegantu te yow lijjantiwoo xale yi te ëllëg xale yi ñoo lay yor ndey mm-hmm. ndey nday ndayu kenn bàyyi bàyyi ñëpp mm-hmm. sa jëkkër mën na am yeneen doom boo fexee ba ratt sa avenir doom yi sa jëkkër mën na am beneen jabar am fa yeneen doom ñoo ñu seen yaay defar leen ba ñu tekki bu ñu màggee yor seen pàppa yow na nga yor sa doom yi ñu lakkal la huit lan nga leen di mënal lan nga leen di mënal xale daal man daal li ma ci gis mooy lu ñu lu ñu def ca bu ñu màggee te waxuma sax màgg mais xale yu ndaw ñi ngi rey Aïcha ah. xale yu ndaw a ngi rey ah, man mës naa ko fi li xale bu ndaw bu am bu amoon huit ans xaw ma neuf te jam morom bi loolu liir naa ko fi yàggul huit ans nga commencé. mooy dañ koy mooy dañ koy foowee rek mooy dañ parce que da ngay génn ci mbedd bi gis ay ñaari mag yu fubar jékki-jékki xeex am na tojal nga ko xottu biteel xale yaa ngi di seetaan hmm. léegi pour ñoom ku ciy xeex xeex dangay bandi bandi soo tojul xottu biteel yaa ngi ut loo gaañee sa morom mooy li ma wax rek ah. jar na sax man sama doom mbedd bi sax xamala nga ci am dem bitig ba ñëw dem bitig ba ñëw parce que instant yi da ngay toog rom di nga romb fee benn amul bu toog ma ngay tox yàmbaam ma ngay jël xarit ba def ko xale bi def ko xarit soo yónnee xale ba ma ngay jàng ci moom mu ngi toog di xencu xet ba bu yàggee dina xencu lu dina ñam lu muy lii lu muy saf loolu tamit tamit daw daw bi ci dëkk bi sëy jigéen ñi sonn nañ tamit di daw parce que léegi bu njëkk bu góor day dem wuti suñu yaay toog yar ñu moo tax suñu génération bu njëkk ba ak léegi bokkul mairie daaw ñu liggéey seen lépp daraan mat ci biir kër gi nga am nga am temps wu toog yar say doom di leen xool moo tax éducation yi bokkul sax mais léegi góor day xëy aw nee jigéen aw nee ngeen jël janq ba boole teg ca digg ba mu yor xale yi jànq bi boppam lay tal janq mënul boole sonn ci kër gi bale fobeere togg bi naas def yëpp bëgg yaral la say doom mënta nekk am na ñoo xamante ni guddi bu guddi la ñu gisanteeg seen doom wala bu dee ko góor gi sax boo ñëwee fekk xale bi nelaw na yaay jeyit noonu bu góor gaaree oto jabar gaare oto jabar gaaree oto ngeen yéeg janq ba dem tëddi bàyyi leen xale yi ban temps ngay am bu góor yëpp matale woon xanaa ma yàlla ni ma sañ koo wax lépp mat ci kër gi. amaana kon jigéen ñi toog dangay gis ko da ngay gis sax ku doon liggéey sa jëkkër ne la arrêté liggéey bi nga géréel ma samay doom mm-hmm. nga arrêté liggéey bi mm-hmm. naa la fay li nga doon fayeeku soit ma dubleel la ko nga gis ko jigéen ki arrêté ko. première mois ñu jox la ko deuxième troisième ba arrêté pare nañ ko. nañ ma baal sama mbokk góor ñi nañ ma baay non non ko non wax mën na ko bu fekkee mën nga ko am na ñoo xam dañ koy mën Aïcha am nañu koy mën am nañu bàyyi seen liggéey ba nii nii mu yàqu seen jëkkër moo leen ne woon bàyyi liggéey nga gérer ma xale yi bi ñu takkee mm-hmm. nga bàyyi sa liggéey pour gérer say doom ñëpp jox la salaire première mois deuxième troisième pare nañ ci duñ la fayati nga nekk femme au foire diw duñ la ko jëndal nga am xew wara dem duñ la jox nga am soxla ci xale yi sax duñ la ko jox te ndem na ma na ma na ma yàlla baal boo duggee ci kër quatre-vingt Sénégal jigéen ñi ñoo seen doom yi mais toggatuñu reer sax reer sax amu ci kër yi léegi xale yi su léegi bu guddi jotee da ngay jox sa doom su nekkee góor nga ne ko demoo lijjanti ko sa bopp sa lijjanti sa bopp yaa ngi commencé ci agressé di ko sëf sàcc yëfu jàmbur këf yëfu jàmbur waaw parce que ñàkk togg reer ci kër yi la ñàkk jox seen doom yi léegi soo waxee ay mag nga dama lijjanti ko sa bopp léegi boo ko amul nan ngay def da ngay dem sàcc ji sàcc ji mu ngay commencé ngay dem di këfantu di sàcc yëfu jàmm fa ngay tàmbalee nit bu waxee nga am fitu jam ko jam nga tuur nga deret ci ngay commencé rendi loolu doo nga am fii instant yi ah xanaa nag ñuy wax dëgg yàlla sëriñ si jug ñaanal ñu waajur yi toog gérer seen doom yu baax bàyyi seen doom ñu bàyyi ak mbedd bi am na ñoo xamante ne dañuy xëy soo ba ngoon jot duñ gis seen doom añ duñ la woo yow duñu xam yow ci lan nga ne ñu ngi bàyyi yow benn groupe ngay am dem teg sa benn biteel di sàngara cent franc nga naan ba màndi volet cinq mille franc nga log ma lijjanti ko kon volet gi day arrêté am na beneen ban mooy ki ñu rey Touba kii la nu ko waxatee nu ko waxatee kii ay waay manque bi manque bi la. non non mhm. démb laa dégg ci. démb laa dégg ñu koy wax. Mhm. ne daa am na feebar bu muy joxe ma ne kon de tey xale yi dee. de genn waa xale yi. loolu de dégg naa ko démb moom maa ko liir ñun chicha am na feebar boo xam ne chicha moo koy indi. maa ngi ko dégg démb xaw ma nag yow boobu amagoo ci dara yow mi yor ci mi yor kaa boobu. dafa joxe feebar de. non non wante Chicha mënul bokk mënoo ko boole ak drogue c'est impossible. ndax Chicha waaw dama waaw d'accord mais mënoo ko boole ak drogue. parce que tey jii anesthésie bi dafa am manque boo xam te ne cinquante mille la anesthésie la ci boppam la ñuy sol ci biir manque bi nga koy kii muy rey sa yaram bi xoro drogue boobu. zoom bi nag drogue bi nga xam te ne danga koy danga koy log mu def la zoom bi. waaw bëgg naa xam foo ko xam. ah ci dëkk bi yaa joor xale laa ci biir dëkk bi laa dëkk. lii lépp ak suñu mi mu ngi suñu réew mi. manque manque jël pompe pompe yi ñuy fay lakk nga pompe ko ci kii ba mu neex di ko di ko xëcc di anesthésie sa yaram bi. sa yaram bi yëpp dee. vole léegi 10 000 francs xaaj bi 5000 xale yi di ko naan ak coca. man ko coca ak whisky ak laa bëgg a xam ñu wax ñu lan la. lépp la ñuy boole di ko naan. dañu waxante dëgg seen yaay duñ ko yëg mën nga voler dugg sa kër taal jël sàcc sa gazu yaay teg ko ci biir néeg bi taal ko di tàng jël ci biir néeg bi sangu teg ci ah moo fi bari ndax soo voler da ngay tàngaay. nag jóg jot na nag senegal yàqu na. senegal yàqu na nag. Sénégal fi la ah man de lii xamatuma ci dara. volet moom ak beneen bi nu mu tuddati bi nga wax loolu. ah am na beneen. waaw man baa duma gaañu. kii la. Euh, kii la rek kon genre yàmba ngeen ko laxas ko nag laxas bi gudd nag ba mel ni bantu tëggkat yi di ko muqee. te xale yaa ngi koy def xale yaa fecckat yi ñëpp a ngi koy def fii raamee ci dëkk bi non man jarul may dugg nag yaa joon ndax dama cee am astuce yu day raa ci am. dama koo xam dama xam ñu koy def nekk ci digg dëkk bi xale yi léegi balaa ñu dugg baat foog ñu ne tat. waaw gis noonu ñu def. Mhm. yaa ngi xam seen parents. xaw ma seen parents mais xam naa xale xale yi léegi. yaa ngi di waxtaan ak. yaa xale yan ngay woo soo xale booy woo ba nu mu lay déggee fekki def na tar nga bàyyi ba su nee nañu loolu moom loolu ci boppam mooy dindi seen seen xalaatu àddina. loolu bu ñu ko defee ñoom duñ seen xol yi duñ ci santé dara day seddu guy mais peut bu fekkente ne yow woo nga. fekkente ne yow woo nga xale bi fekk ba mu def loolu ba pare nga woo xale bi mu de toog waxtaan ak moom. yaa dem nañu uti ci seen néeg. non léegi lu gën a bon yow nan nga sa sa doom amul jëkkër amul dara nga ba ko mu dem luwee ji. waaw loolu bëri kay ah jeex na léegi jaratuñu ma bële dañuy dem luwee ji. cotiser defal seen kër toog. waaw ñoom yaa baax na bu ñu xëyee bu ñu am lu ñu lekk mais nañu am lu ñu suusee. gis naa waaw ah, kon jeex na nag joor jeex na tàkk loolu de mu am fii Sénégal. Ah, sax dangay am sa doom yar ko ci biir kër gi ndijaayam dafa di tux ay yàmba xam nga yàqal la di ko yónnee ay cigarette xam nga yooyu tamit mi ngi waaw loolu dëgg la yónnee tey day na ci biir kër yi fa lañ mhm. gisee. Mhm. parce sa benn frère yaay bu ne ci kër gi wax na lu tudd di la yu sew sewaani tamit foofu nga koy tàmm. fi nga koy tàmm. fa nga koy tàmmee dégg naa ko xale yi la ñuy yónni te xale loo ko yónni waaw bu yàggee mu essayé ko jox ko moto mu taal lay dem ba doon waaw xale xale ci li mu yàgg rek loolu lay adapté wu loolu lay adapté wu loolu daal nañ ko moytu yónni xale yi yónni xale yi looy def yow bu dee yow dem nga yow merci ba xam ne yow yaa ngi koy def kenn mënalu la dara mm-hmm. boo ko soxlaa demalal sa bopp mm-hmm. benn nit bu yàqu ci kër moo gën kër gi yëpp yàqu. bu la kenn mën a sutura moom jeex na moom. sutura moom jeex na moom sutura moom li ci kër yi moom nee leen déggoo man leen bu ñu defee di ko tem. day gis du du ak mbaam du loolu am na. parce que nekk ak sa te man man man li ma metti mooy naka la yooyu yëpp ci dëkk bi lay dugg fan lay jaar. Ah. waaw te loolu lépp ci dëkk bi lay dugg mi ngi fiy dugg xale yee ngi koy jël man keroog gis naa ñu wane ay tàngal xaw ma lan yoo xam ne ñu ne tàngal la. Gàmbi lay jógee. bu <laughs> nekkee <laughs> benn tàngal la de buñ ne ci école yi lañ koy jaay xale yi di ko màcc. non loolu du volé de. non non boobu ñu ngi koy jaay ci école yi te nee nañ drogue la. jël di ko jaay ngeen ne ko ngeen maa ah président la jóg nag wax dëkk bi. président la ministre de la jeunesse na jóg nag. Ah, jeunesse bee ngi yàqu. ko tàngal yi. mooy fa ah <laughs> yàlla baax na. ma ne ko ci yàlla baax. ba xam ne yow yaa koy def kenn mënalu la dara. boo ko soxlaa demalal sa bopp ci xale yi rey yu bari na man de man de bu dee man rek man man bu dee yar moom dinaa def lu ma mën mais bu ku nekk jëlee woon noonu mbir mi bañ a tàyyi bañ a tàyyi yow nit nit dëng na nit nit topp ci di rayanteeg moom di rayanteeg moom ba ko ci droit chemin mais nit ñi jot boobu lañ amatul jot bob lañ amatul da ngay gis yow nekk ak sa sa sa sa sœur wala sa frère ci biir kër pour nga yaral ko dooma munul ko soit ñaari parti lay am soit papa ji wala yaay ji moo la naan bu yarlo mala sama dom wala yow nga war ko def te defuloo ko te ku nek da nga wara a bo demé ba tële nga xamné ne nga bu ñëk ba mo amone ya yaa bu njëkk ba sax sa doom bu góor ko doon tata nga yob ko ko ñu dóoroo lo ko ba muy di a mhm. kan moo def yow sa doom su sacci koy bañ nga sa papa ji sàcc la waaw ba ko papa di yëg fekk c'est trop tard fekk xale bi na def ba jug ba jug diiranteeg papa mbagg fekk loolu yëpp yàgg na ko def yaay jëkk ko nëbbal man daal Sénégal yomb naa daal Zey. yàlla yàlla muccal ñu rek sàmmal nànk dafa yàqu. jamono ji changé wul de. jamono ci boppam mooy yàqu man des fois damay tit damay toog sama kër ne ci YouTube bi. di xool ay cas di xool ma naan lii est-ce que man senegal laa nekk man lii may gis nii yëpp. est-ce que lii Sénégal la xewee. yow rey yow yow rey boo ko déggaan choc la lay def ñu koy def ay débat ci télé yi ñu koy ñu koy ay débat ci télé mais léegi jaratul débat sax ndax chaque par par minute ngay dégg ay rey ci internet bi te man li ma si jaaxal benn du am suivi nag man de man de gisaguma fu ñu ne jàpp nañ ci reyoon de fois nga ne rey nañ nit kooku daw na doo gis suivi du am suivi bu ñu bu ñu commencé commencé cee wax pare nañ de sax balaa ñoo pare wax beneen amaat nga tourné waat ci beneen kaa boobu mi ngi ku yabu di sellal ànd ak njàpp. waaw moo lay mën. moo yi rek. bu ti waxuma la xale de. mais na ma yàlla baal ak ni sañ ko wax mais indiscipline man nee naa nee nañ wax dëkku Afrique yëpp mais pour man Sénégal la ëppee. sénégalais lépp dala naan maal ko dàq. réew maa la gën a réew. yaru sax ñu maa gën yaru mais réew moom maa la gën a réew moom. noo sénégalais ni muy tàmmee baat boobu te man daf may énervé baat boobu baaxul maa la gën a réew dangay dof dof la maa la gën a dof maa la gën a yegg yooyu baaxul. waaw tëkku baaxul. ak lépp maa la ko ci lépp nag ba ci oto yi da ngay gis oto nii rek may ma ma toog puusal rek ma ne la nii laa mën a toogee histoire commencé boo boo boo boo boo boo kiiwul nga waaj jël taxi nii laa mën a toogee du ma puus ngeen di buuxante kële gedd jug taxaw. te ngeen di ay sénégalais war a bëggante ay nit dañuy bëggante jàppalante bu ngeen bokkul dara sax mais yéen a bokk dëkk ay sénégalais ngeen. moom ah, la rek. loolu moom laa lay lay wax lañ defarul ca xale yi ba ba depuis bas âge gis ñu impliqué ci yow ba nga nekkee xale du deñ soo ñu la defalee baax di ko def sa nopp yi sa di ko def boole leen ngeen bokk ndey ak baay sa xamal ay yéen ñëpp yéen a bokk ndey ak baay deret ji daw ci kii mooy daw ci kële def loolu seen biir ngeen màggandoo ko bëggante bu ngeen demee ba màgg kenn du leen mën a tàqale te lu nekk ci kii mooy nekk ci kële loolu bu ko yaay yëpp doon def kon Sénégal du demee nii moom laa lay wax ñun moom ñun di jikko bi def sama yaay def si ñun ñun wax dëgg yaa rëccuwuma ko rëccuwuma ko def na si ñun bëggante yërëmante rusante te loolu boo amee ci famille rek day génn ba ci société bi parce que famille la day génn ci mbedd beneen famille def noonu ay am mu génn ci mbedd bi kon bu yàggee Sénégal defaru rafet parce que parce que mënuñu jël lépp sëf ko état tam état mënul dugg ci biir kër di yar doom yi amul mënul nekk te doone kaa am na jur sa doom ragal ko jur sa doom ragal ko am na jur sa doom fan sa doom am na fan sa doom day dem ba doo ko doo ko tere dara doo ko wax dara am na ñu fan seen doom sëy mm-hmm. Mm-hmm. duñ duñ def baax na seen doom du merci moo baa ngi noonu sen dom deme na yow do wax sa dom dara ba muy muy mang su solo nga contane ndaysan mo jek de yaangi lor sa bop yaangi lor sa bop dina dem ba tollu ci age bo xamanteni di nga soxla sa dom fofu dula faale genn am ay yaay ci biti te lolu lolu bari na dey legi am sa complexe am sa dom dem ba sa dom xeb la moy waral yaay yi ci mbedd bi legi legi yaay yaama neex ci biti yeneen yaay indi sa yeneen yaay ñoo lay gérer waa kay waa lool lool fu lool pour lan tamit pour lan yor sa xew yow yor sa xew gérer sa xew tëj sa yaay kolu ne def voilam bu oyof kolu toog sa ginnaaw ak ay ak ay moroomam yu xaw a néew doole yow nga jongama be def tagal def tagal bu ba ëpp nii defaru indi sa ay yaay teg du fi géex teg sa yaay ñu defar yëpp sa yaay boo xee sa mu yuux ko dama toog ne dama pare sa yaay dem te pour lan sa yaay nu mënti mel moo la jur bu la rayoon ci commencement ba doo màgg moom laa lay wax. foot bi fépp la dafa partagé wu man foot bi ban pour man foot bi dafa partagé wu du dëgg see. Ah, indi bee ko suuf merci. kër yi tàng muy yaay yi di papa yi di jaay yëpp. rukk yëpp foo foo foo ràmb daal ma ngay bax baxi man daal ay ah. sa jombi naa borom volet suus ma sonn dama sonn ay sa daa xam na mbir sa Ba xam na yëf sa Ba man li fi lim lépp nii bu weesoo volé ak sa suuf tuddoo ko maa ko tudd. trap nag. du boo jëm <laughs> léegi anesthésie bi nag manque bi xale yi jël di ko. waaw anesthésie manque yi xale yi jël di ko di ko manque daal muy rey seen yaram yi dootoo yëg dara suñ la reen suñ la xottee sax doo ko yëg. wa problème mo lan bo fi jar ngay drogué yow di yak sa bop li mo tax xalé yi cancer yi bari man mos do xal ben xalé mo dama stressé dama jom bi kéro stressé xalé bi am ay 13 ans maa mo dama stressé man ko fo tollu ba stressé bu njëkk ba yow xale yow doo sax bëgg nek mak mi ni nga xalé yi salam alaykum rek nek nañ mak man gisatuma da sa ba way nako xalé mhm. yi élastigatuñu palaa lim amoon na beneen tam ure loolu lépp ay desam bon na ko man wooy boobu dafa ma neex ndax dama ci jaar moom laa lay wax mais mais ñun bi ñuy am ay ay quatorze ans ñi ngi def ay taxañ ak ay suñu jaaru diibe yi ñuy takkal depuis bébé suñu takk lañ koy dindi léegi xale yi dangay am quatorze ans yaa ngi teg ay perruque di def ay cheveux di def style di diw di leeral loolu lan la gisati nga korite ak tabaski tur fet dafa amati amatul. waaw amatul tur fet amatul tabaski léegi léegi korite ak tabaski mag yi sax démissionné nañ léegi korite ak tabaski da ngay dem ba atelier tailleur yi ñu fa toog ñëpp ay ñaw xale la ñuy xaar ñawalatuñ benn mag da ngay gis ku bébé da ngay gis ku ngénte sa doom un mois korite jot nga ñawal ko jesneer brodé ko patché ko ba mu bien solal xale bi bopp ba nàmpatal ba wéragul nga def ci baret def na takkal ko ay jaaro def xale yu cinq nga gis xale yoo xam ne ma gis naa leen ci internet bi ay xale yu cinq ans korite ñu defal leen pose sil defal leen sil def crayon tatoué leen ah, makki makki ah, xale bu amoon cinq ans ñu yaay ji teg ko ko di ko jox chicha muy dox nag ah, aw tabaski ah <laughs> tabaski da yaay ji teg ko ci restaurant teg ko ko chicha muy dox léegi ministre ba mu gisee woon loolu mënu woon alamaan yaay ji ni dina amata djel domam fan lañuy Sénégal fi Médina fan ngay gissete sax xale xale yu ndaw fu ñuy toxé chicha saxaar si nga yobu fa ay xale di len fa teg di tox lañ ko defoon nan amul problème amul danger motax tax ñu fi exposé wu ni wa parce que chinois dañ ci dugg léegi di defal parfum yi da ngay giss léegi dañoo tere tek chicha ci mbedd ndax xale yu góor dañ ci tek chicha et ñu def parfum yàmbaa lañ ci def di ko tox ñu fekk ci biir émission bi yow mi ma la toppee moom toppee zëy mooy li wax rek zëy xale boo ko jëlee correcté nga defal ko robe yi muy màgg ñuy changé bu xale bi amee forme nga defal ko jupe droite génne forme bi defal ko te am na xale yu jékk defal ko taille basse xale bi di màgg nga jël perruque des fois ñu jël duñ ko perruque gum ci âge boobu de bay am deux ans trois ans ñu def si ñoo kë jël sa cheveux yow lem yaay ji defal ko ko kë parce que xam nga lu tax loolu tendance defante bi ci dëkk bi defante yi ci kër yi sama juppee corgo ba amul doole doom ja xam naa la day redoubler temps xale yooyu lañ daan wax la nga korité moom ngay tabaskee moom la am man la sama jëkkër am doole damay rayante pour sa am na sëy yu ciy tas mhm. ci ay korité tabaski te yow boobu xamoo ne yaa ngi lor xale bi mhm. loolu nga koy defal xale bi loolu lay màggee dem ba am ay yenn âge yi jànku nag dem école lycée xoolal lycée léegi xale yi man lycée rek daa gis xale yi am jëmm nekk lycée mais léegi lycée man man maa ngi doon wax ak sama sama petite di ko wax benn xale mun ne ma lycée la nekk ma ne ko du dëgg man ne ko kii primaire la nekk mu ne ma kii am examen kañ pour te dire nii la toll. nekk ay xale nekk lycée. Mm-hmm. léegi yow boo tàmmee loolu ci biir kër gi dem lycée rek commencé nga jànku te boo nekkee xale yow sa rêve yëpp mooy nga nekk mag soo nekkee mag sa rêve mooy nga nekk xale. Mm-hmm. ma mës naa ànd ak sama benn xarit mu seet si ma ñu génn ñu gis ay xale yu tëb mu ne ma ay waay maa ngi faa xale yi ma ne ko lu xew mu ne ma am benn problème mu ne ma ay bu ngeen màggee te boobu yàgg na mu ne ma ay mu ne ma ay bu ñu màggee ñu ngi tëb électrique di kontaan di ree suñu paree sangu tëdd xëyaat na ci leneen amuñu benn souci àdduna mu ne ma xale dafa neex ma ne ko nag ñoom li ñuy tëbee électrique nii seen xel ni mi ngi ci màgg te boo màggee jàkkaarloog société bi nag mm-hmm. te société bi yombul moo tax ku rëcc rek kenn rëccul sax ndax nee naa la nga nekk baax di dem ba mag yàlla yow yàlla su yaa changé sa bopp parce que loolu lépp jalousie la jalousie merci loolu mooy yàq jikko nit da ngay gis ko mu xam ne day metti mu xam ne day metti merci xale yi de 15 ans ñu commencé. subaa mu est-ce que du tam. est-ce du tam bu njëkk ba. parce que ñun. loolu loolu amatul fenn. Hmm? Hmm? ma ne loolu amatul fenn xale yu reer hamburger la ñuy lekk. mayga sax jaratu mayga. am na amoon 200 dem mayga mais mayga jaratu. xale yi 15 ans 16 ans ñu ngi mbaraan cheveux eh, iPhone iPhone moom dëgg moom loos ko mu ngi ci société bi. Hmm. xale yi dinañ gën a bon xale jigéen ñi. ndax man laa baan fajar sax dama ko gëj a dégg ci xale yi amatul joxe nañ ko yàgg na. am nañu ba fexe ba gis ko dëggam kawsu baa ngi fii di di di baax 60 000 nga jaay kawsu bi kawsu bi dëggam mu ngi am moo ko original bi benn amul benn mag mag yëpp kataraak nañ di kan moo la yëkkati di la ko xool ne moom la mag yëpp kataraak nañu. waaw baax na tepp tepp boobu amatul Sénégal fii tepp tepp a fi amatul da ngay gis xale boo xamante ne génnu demul dikkul jàngi ñëw école yàqu bon na yàgg na yàqu na ndax ca 8 heures ba ak 9 ba dem na ñami ñëwaat toog te kenn du ñam ne doy na damay dem essayer saa yoo ñamee da nga koy dem xoolaat nu mel fii tepp tepp amagul Sénégal nañu waxante dëgg xale yi dañoo teel am fit dëggam ñii di jaay ñu ngi ci internet bi doon ñu koy jaay xale yi dañ koy dem jënd ji xatal gi ah, liberté soo ko amul sa biir kër yaa ngi jàngi danga koy am ci mbedd bi. dañuy dégg ay kër ci kër nekk am gis ko. Mhm. nga gis yow sa tànk yi war nga ko teg fu leer na xale yu am fit mais am na xale yu bëgg dara. Mhm. am na xale yoo xam ne fëkk yóbbu leen. merci boo leen rombee ak seen forme bu rafet bi odoo seen saak nga klaxonné leen ba du ñuy foto. Mhm. ñii daw jëli kalaandoo wala ñu jëli ràtt. amna xalé goré yu gore. Zeyna non ñëpp yam suba teel ngay dox. non si xam Zeyna dama ñëpp eh am nak. nag. bu ma jubóog yow de. yàlla xam na ne loolu yoonu amatul. xale yi ñëpp bon ne xale xam nañ ne mais dañ la bëgg wax ne am ñu baax ba léegi. waaw baax na dëggam déggoo kaw si baax. soy yeewatee suba teel ngay dox si ngay xam zena dama ne lolu zena lolu amatu dama ne lolu amatu zena zena yàlla degor ma yàlla xam na ne loolu loolu amatul dama gis ay xale yo xamantene ne aw ñu 18 ans ñom ñoo am seen bop nek aw ñu 18 ans xam amna mais dañ bëgg wax ni baax zena wa baxna ndegam si baa baangi jaay xale xale tamun xam nañu xatal xam nañu déggoo lu ma wax Zeyna wax loo waaw Zeyna dama la ne fii laaw tong-tongu fajar ku fi bënn su ku fi tëgg sa nënd mu xar fii géwél gu xër jër jër nëndam yóbbu ko suba te tëgg mu taw ah fexe ba gis ko. yàlla xam na ni xale yi fii xale yi fii ñoo dàq musique ñëpp dañuy musique seen seen mag yi sax musique duñ ko. waaw loolu lool kooku ancien la. non non loolu ñu ancien la xam nga loolu mooy ñan. non non ñooñu mooy moroomu yaa joor yi nga xam dañoo yàgg dañoo xam jamono yépp mais jëlal xale yi 2000 99 laa la commencé jël 2000 na fa benn xale na fa benn xale kii tong-tongu fajar nga xool di nga ko fa gis sombi gi day dog de soo ci xam waaw xanaa kii rek taf mooy taf xam nga taf gisatoo sax kuy taf malien yi doon taf fan lañu amati taf amatu xale yi ngay taf tant que amul jëkkër doo ko teeb an fu mu amati ah yaa jow société bi yàqu na fi xana ñuy xey di wacce kamel rek di ñaan sëriñ ci juk ci seen bop di ñu ñaanal. defara senegal defara senegal wante fii. Sénégal moom yàqu na mo xale fit ba sagal ak naan dox lañ yamalé bu dëkk ba yow turu serigne rek boko ko déggaan da ngay daw. wor mal ko mais légui taf taf ñu sagal la. te nga am njaboot ci bébé aw bu dëkk ba nga naan gis bébé day judd bu mu xool dañ koy tuuf ba biñ koy ngénte benn bët bi day patak yoy do ko gis. amatul. mais xale la dañ judd rek xool. waaw waaw dañu xool tuufaay boobu te gisuma ko. tuufaay bi gisuma ko. man kenn tuufatul sinap sax dañuy ci ci bébé waaw rek ba gis xale yi sinap. waa duggal ci tiktok bi. kon loolu daal borom dama ragal nag lépp sunu borom la. Ah, parce que moo ñu sàkk mooy def xale bu nekk ak génération bi nu mu koy sant moo tax ma ne la 99 kay jàpp. moo tax ma ne la tong tongu fajar ah, ruy boo fonde boo fi teg nga def ci meew day dog mm-hmm. Mm-hmm. parce que soo amul ndaw ñu toggal la fonde mm-hmm. boo defee meew day dog boo def boo boo ko amee nag bu ñu defee meew day dëgër këj nënd goo tëdd du xaar amatu fi xale yëpp xam nañ ko dañuy mbalax rek di dem moo tax ñu war a téye seen doom yi ba pare dangay bàyyi xale bu ndaw nga koy ne fóotal sa sirip yow yaay ji dee fóot sa sirip bu doom si ngay xam say doom mais yow nay nga sax jël sa sir bu doon fóot soo paree soo sax nga fóotaale ko sir bu xale bi oos na tilim na xale boo fa gis sa yaay ñu ngi la yóbbu de xool infection pour lan ñu ñun ñu yaay yu doo ñu fóota sirib nga xam parce que on sait jamais ba xam sàkku nañ sa doom yooyu moom laa lay wax problème bi yëpp xam nga la bii wutum xaalis waa léegi xamal tax léegi bi maam moo am léegi léegi ay xale yu ndaw ñoo nekk maam wax ji lool la bu njëkk ba maam nga daan wax maam mais léegi sët yi léegi da gis xale bu ndaw naan la yóbba ne nekk naa maam am naa sët maam yi ay xale yu ndaw lañ def jiin da ngay gis ko ànd ak sëtam nga jiin mu mu jiinu ay ay maamu xale moo am yu ndaw ñoo sëy am doom man sama turandoo ngénte am jëkkër ba am doom jur ngénte muy benn baby mama ma ne xoolal def baby mama maanaam ay ay ay xale xale yu ndaw ñoo am doom ñoo jur maandu ay xale lañ man mature ñu te léegi immature bi dañ ko def challenge boo xamante ne ñëpp ciy kontaan damaa immature damaa ba kenn dootul xalaat senegal xoola xel yee paan nit ñi duñu xalaat xalaatatuñu jéemuñu créer dara jéemuñu def dara na ma yàlla baal TikTok bii lu yàq Sénégal tam ci la bokk lu yàq Sénégal xale bu ndaw ngay gis muy TikTok di mel ni daa moom moom li muy TikTok moom xale bu ndaw wante mais wante maire yi nga xam te nañuy tëdd seen ñu ci suuf di tiktok nak? tiktok gi la ñu bax mooy lu rek di ngeen dem ba tubaab bi branché leen loo xamante ne da ngeen di foog ne yéen ci biir merci ba pare téléphone yi waxtaan amatul waxtaan bu njëkk ba benn télé am ci kër yi saal bi saal bi la télé bi di nekk su ngeen ci ba télé bu ngeen reeree yéen a saat saan télé mais amatul mais loolu sax ci loolu ci paa yi laa ko teg mais dangay ngay xool paa dem julli paa boo xam te ne da ngay dem julli ji geewe balaa ngay dugg sa kër 22h yaa ngi ut benn xale bi 18 ans boo ko janteeg ci angle bi. loolu am na ci paa yi fii. ah paa bi paa bi àndoon ak geram dem hôtel dee fa nag. waaw baax na léegi yow heure yooyu yaa def reer reer ñëpp toog reer reer gis tubaab gi reer da ngeen di teg ci waañ ku ne tibb sa palaat dem sa néeg waaw benn benn benn kaa tam kon fiiraange bi ci kër yi tamit fiir gu ëpp day yàq kër day yàq njaboot waaw parce que fiir bu ëpp doo tal sa doom tal sa sa loolu fiir da koy indi Aïcha ñi fi rey di jëkkër bëri na du fi jeex du xaj boy sey ken bañon nga fiire sa jëkkër topato sa ménage topato sa sey mais nga am ya des limites daal nga xam boy bala ngay def dara nga réfléchir xol nit da ngay am sago nit da ngay am sago mëno ñew lu ne bëri rek nga fajal ko sa bop ci sasé bu doon lool rek ñun ñun ñëpp dem nañ kon lepp lu. aajo góor la mën ta té sax góor la mën ta té teewul góor de parce que tay ji da ngay am sa jëkke ben Aïcha Ndawang ci mbéd diko xaar parin sa ku góor ki sax mëna baña tal ay doxaan mais dina fexé ba ba xarit tok yow dina fexé ba am sa numéro man ma lay doxaan léegi xalé jigéen ñi doxaan góor ñi ci dëkk bi ci dëkk bi ñoy doxaan ci jàmbur yi ñoy lay invité ndékki waye am na ñoo xamné ne kenn mënu leen laal lan xalé goor yi noy bop yi wa amna goor góor déggoon dëggam kilifa bu mat ni tek ñetti abdu nga mëna eri wa góor jeune sax am na jeune yu mat. jeune ba kaari ñoo dàq doxaan dañ lay tàggu bureau 8h. 9h ñu ngi ci obi ma 9h ñu ngi ci chambre ba 10h 11h góor ñoo xam te ne bëccëg la ñuy doxaan duñ doxaan guddi. fi mu négatif nag jël lépp bonal ko ah, ma ko mais man li may wax dafa am ci société bi. Ah, ne seen kër am na pis boo seen kalpe lay nekk seen jabar xamu ko xale góor yaa ngi koy def vérifier seen kalpe ci kër yi. am nañu puce. ah wala ñu jël benn téléphone def ci puce bu ndaw suñuy wàcc bàyyi nañ ko ci toiru bureau ba. doo xam numéro bi. ngay ànd ak sa xarit mu ngi charme sa jëkkër te xamoo ko fexe na ma amante moom numéro. xamante moom auberge yi ndagam ñu ngi fi rek ak appartement meublé yi. mais am na góor ñoo xam ne nag seen jabar rek lañ xool ah. seen jabar rek lañ xool xoolu ñu keneen soo toogee yow mi Aïcha boo mel ni Endo pour ñoom góor nga seen jabar lañ xool ak góor bu ànd ak sagoom dafa am mais mi ngi fii bul jël ñëpp ne ñoom noonu nañ mel bien sûr am na ñoom seen jabar rek la ñu bëgg parce que jamono ji kaay ma xamal la non non xam nga baa bi tamit loolu amul sens xoola xamalu tax baa bi amul sens gis nga góor ñi nobuñu ñenn ñi ñoo xam ne dañ lay nax rek dañ lay théorie mais gis nga ki ñu takk ba teg la ci biir kër gi kooku yow bokkoo kenn gis nga ñun ñi nga xam ne amuñu jëkkër ñoo war a xoolaat bu baax nañuy doxalee parce que xamul sax noo déglu rek waaw mais am na góor ñoom duñu lekk fenn duñu naan fenn xooluñu ko du seen jabaran ah. mais Zeyna est-ce que lii duñ ko tem noo xam istri dañ a tem dañ ko war a tem parce que li nga wax nii xam li nga wax nii am na mais da ngay gis nga commencé nga ku jigéen ki commencé ngeen di waxtaan ba doxaan commencé fa jug ku jigéen ki xam nga lu muy njëkk ci yow déedéet la ak sa jëkkër yow na fexe yow ba nga wax ba wax sa turu jabar nga jox ko bopp moom li dañ koy def tem parce que yi ma ci woon lu ma ci wara wax da ci bari lu ma ci wara wax da ci bari taw boo leen charmer ba suba xooluñu la. non léegi do loolu jarut yow pour yow pour déedéel pour déedéel jarul lekk fen jarul takandé sa dañ la ci déedéel. Zeyna fan nga né takkandeer gi nga tok nga tok nga taxaw ci sa takkandeer suñu ci tibé ci sous sous am la. Zeyna rek lee dëkk baa fi ku ci mel Tafa ja boko gisé ma nga yew yewlu te ku romb sol pou mu pisse mo fi am di dañ koy def tem. Eh, tem la ci biir thème yi Sénégal li fi nekk metti na senegal li fi nekk doy na waar senegal li fi nekk kenn mënu koo wax liñ fi tënk lépp bu ci nekk am na benn benn journée boppam buñ ko xamante ne buñ ciy wax sax du jeex ndax ñëpp a ngi wax waa kay xaju ci cin li mm-hmm. moo tax lii daal nañ ko fi yemale rek ba ba ba émission bi ci topp ñu koy dagg-daggee benn thème par thème te xam naa ko ñu topp rek waaw dëgg yàlla di nga ci defaru nag ku ñu toog di nga ci defaru loolu lañ leen indi loon tey di wax nag euh, bu kàddu yi rafetee ci ci ci suñu borom la bu ñaawee nag ci bu amee lu ci dëng nag ci ñun la di leen jéggalu bu baax a baax di ñaanal ñu sama naakaandoo yi ma nekkaloon muy Zeyna ak Aïcha mi nga xamante ni moom à suivre moom Aïcha moom amul waa di gërëm ñëpp waa seen média ñoo fi ñëwoon doon leen defal émission bi di leen sant di leen gërëm ba beneen yoon incha allah di